alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nu sante yàlla sunu borom julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur boo xam ne yaa ngi jàkkaarloog télévision Futurs Médias di jiital ci nuyoo bi xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem jabootu maam Seydil Hadj Malick yëpp di ndokkeel ñëpp ci burdu bu sell bi nga xam ne tàmbali nañ ko démb di ñaan yàlla sunu borom lépp lu luñ ci jàng yàlla na ko yàlla def ay leer sa mbërtal ko ci àddina bi yëpp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mel ni seen émission leeral burdu dellu si waat na démb maa ngi dalaloon oustaz Souleymane Diop ñu ngi koy ndokkeel moom itam tey nag mbokk yi ma dalal borom xam-xam boo xam ni kenn dootu ko présenté ci senegal kenn dootu ko présenté muy oustaz Pape Makhtar Sylla mi ngeen xam ni ma ko waxee oustaz Souleymane Diop démb oustaz Pape Makhtar Sylla di borom xam-xam di jàmbaar waaye itam di kenn ci borom xam-xam yi nga xam ni xadara bi dañ leen di bége daaw invité woon nañ ko mu def fi waxtaan wu am solo ren nag téléspectateur yu télévision Futurs Médias ñoo ko demandé waat ne il faut mu ñëw ndax fi nu fi nu fi nu yemoon daaw fokk ñu yeggali ko oustaz Pape Makhtar Sylla laa dalal tey ci suñu plateau dama koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateur yu télévision Futurs Médias oustaz Pape Makhtar Sylla maa ngi lay nuyu. jërëjëf Oustaz Modou Fall maa ngi lay fay nuyoo di la ziyaara di ziyaar ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan di ci jiital xalif général Tidiane Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour di ci teg rakkam ju tedd ji Pape Maodo Sy di ci teg tamit rakkam ju tedd ji Serigne Baye Abdoul Aziz di nuyu mboolem njabootu Cheikh Seydil Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu waaye du nuyu jullit ñi nga xam ni ñu ngi bëggee weer wu tedd yëpp tubaarakallaahu ci biir réew mi ak ci bitim réew oustaz Modou Fall. jërëjëf oustaz Pape Makhtar Sylla ci nuyoo bu am solo boobu. Mhm. tey nag yaakaar naa ñu ngi ci ñaareelu bunt ci téere bi nga xam ni moom mooy burdatul madiix ñu bëggoon oustaz Pape Makhtar Sylla nga wax ñu bunt bi lan la undu mhm. ndax bari na koo xam ni mi ngi dégg burdu mu di ko neex ci ni ñu koy jàngee. ci li ñu wax ni burdu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lay wax waaye bu nu xamoon tey importance su buntu ñaareel bi nga xam ne moom la ñu jàng tey ci burdu bi mhm. yaakaar naa dana neex téléspectateurs yu télévision Futurs Médias mhm. ma bàyyi la nga indi ci ay leeral jërëjëf euh, euh, moo du Fall tey ñu ngi ci suñu ñaareelu buntu ci burdatul madih muy téere bi nga xam ni nitu yàlla bu rëy bu mag boobu di Mouhamadul Buseyri yu moo ko taalif ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye ñaareelu bunt bi tey li muy wax mooy mi ngi jàngale fi taxdiri min hawa nafs ñaareelu bunt bi tey day jàngal nit ki nan la mën a def pour wattu bànneexu bakkanam loolu lay jàngale waaye ci biir bunt bi Oustaz Modou Fall Mouhamadul Busheeri yu daf ci jàngale ñeenti yëf bu njëkk bi daf ci jàngale ni nit soo bëggee mucc ci sa bakkan faaw nga am kilifa ñaareel bi itam muy wane ni bakkan ak xale bi nàmp ñoo yem mu ni xale bi nàmp doo gis mukk liir bu nàmp walla ku nàmp ba ñu yaayam feral ma déedéet parce que ween wi dafa neex soow mi neex day bëgg continuer rek di nàmp mu ni bakkan nag dafa mel ni comme xale bi nàmp xale bi nàmp du wax mukk feral ma waaye dañ koy feral nag ñaareelu tomb bi mu lay xamal yow nit na nga fexe toujours li la sa bakkan di digal ak ki muy àndal di la ko digal te mooy seytaane ndax ñoom ñaar ñooy def nii na nga fexe bay wuute ak ñoom ñeenteelu tomb bi nag mi ngi digle na jëf ëpp wax jëf nay ëpp wax su ma la ko bëggee tënkal oustaz du bunt bi boo demee ci biir bunt bi da ngay dégg muy wax man lii béréb di jimaaxin min galayatiha kama yuraddu jimaahul xayli billujumi booba nitu yàlla yi ñooy waxee noonu nitu yàlla yi dañuy xaaj seen jëmm ñaari jëmm jël benn jëmm ji mu yedd benn jëmm ji waaye loolu seen njàngale la ak seen jege yàlla waaye ñoom meluñu noonu dafay jàngale ni bakkanam dafa màmm bakkanam dafa màmm nekk ci li ko neex topp àdduna topp bànneexu àdduna fu ko neex lu ko neex def lu ko neex wax mu dem ba ci biir mu xam ni moom bakkanam moom mënatu ko téye comme mënatul téye bakkanam nag faaw mu wut kilifa gu ko téyeel bakkanam loolu tax mu ni man lii bi rëddi jimaahin min gawaayatiha kama yuraddu jimaahul xayli bi lujmi xam nga fas su màmmee lu koy téye mooy laab ji ngay téye poñe ko fas wi taxaw pour ma pour mën a taxaw ci màmm gi mu màmmoon mu ne nag sama bakkan topp naa sama bakkan topp goo xam ni xam naa ni man mënatumaa wàññi sama bakkan pour ma waññi sama bakkan nag il faut ma am nitu yàlla bu ma àndal boo xam ni moo may wàññil sama bakkan moo tax bi mu ko waxee yàlla boole na ko nitu yàlla boo xam ni moo ko waññil bakkanam ndax sëriñam bokkoon na ci ñi nga xam ni fu ñu masaan toog dañuy jàkkaarloog sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñu imaamu Bushayri yu radiallahu taala anhu fu mu mas a toog dafay jàkkaarloog sayyidul wujud radiallahu taala anhu léegi nag muy jàngale bakkan mu ni bakkan ci buntu ñaareel bi mu ni bakkan dafa mel ni ki xale wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala xubbi ridaa'i wa in taftimhu yanfatimi mu ni bakkan moom ak xale bi nàmp ñoo yem mu ni xale bi nàmp feeg yaayam mi ngi koy jox ween wi day nàmp rek waaye su ko yaayam feralee te bañ kaa yërëm ca feral ga nee na xale bi dafay fer ndax dafay miis bàyyi ween wi mu ni bakkan tamit noonu la mel xam nga oustaz Modou Fall yenn saa yi nga gis koo xam ni day def naka su dul noona mu toog diir bakkanam yedd ko mu daal di cay génn waaye bu toogaatee tuuti mel bakkanam daf ko ca ah. dugalaat mu ah. demaat ca mu ni nag bakkan boobu ji ci dugalaat mu ni feral ko benn yoon mu ne boo ko feralee rek dafay bàyyi caaxaan yi mu nekkoon bàyyi mbóosóor yi mu nekkoon bu seytaan di la wax ni bakkan dafa am àndandoo bu rëy bu am doole te mooy seytaane mu ni ñoom ñaar nag na nga fexe toujours ba di uute ak ñoom moo tax mu ni wa xaalifi nafsa wa seytaana wa azihima wa in huma ma xaddaaka nusxa fattahimi mu ni yow naga nga wuute toujours sa bakkan sa bakkan toujours lim lay digal loolu nekkul lu baax xam nga oustaz nit dafa am ay bakkan yu bare bakkan yi de mat na fukki bakkan ak ñett waaye ma limal la ci ñetti bakkan rek dafa am lu ñuy tuddee an nafsul amaarati bi suu mooy bakkan bi nga xam ni moo lay digal lu bon am bakkan bu ñuy tuddee nafsul lawaama mooy bakkan bi nga xam ni moo yedd am bakkan bi ñuy tuddee nafsul mutmainna mooy bakkan bi nga xam ni moo dal moo teey nga xam ne boo fa àggee da ngay jege am ngërëmu yàlla subhanahu wa taala moom la alquran di wax yaa ayatuha nafsul mutmainnatu irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya fa duxuli fi ibadi wa duxuli jannati bakkan bi nga xam ne mooy nafsul amaarati bi mooy bakkan bi lay lu ñaaw mu ni bakkan boobu da fexe xeex ak moom moom la alquran di wax ni xadaf laxa man zakkaaha nee na xadaf laxa texe na man zakkaaha ki nga xam ne sellal na bakkanam waaye waxaat xaaba man desaaha ki nga xam ne nag bàyyi na bakkanam mu koy digal ay safaan mu koy def kooku dundam yàqu na am beneen bakkan bu tudd an nafsul lawaama mooy bakkan bi nga xam ne moo lay kenn ku nekk am na ko da gis boo defee nekk su dul noona bakkan boobu day wax ak yow maanaam sa xel dootul dal sa dootul dal ndax def nga nekk su dul noona bakkan boobu nag mu ni dafa am ku muy àndal muy cheytaane bu cheyri yi ne wa xaalifi nafsa wa cheytaana waazihima wa in huma mahadaka nusa fattahimi mu ni bakkan ak cheytaane ñoom ñaar na fexe ba di uuteeg ñoom ñoom ñaar képp ku taxaw di la jéem a laaye biir naan la nii la wala naa la nee na bul nangu wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kaydal xasmi wala xakami mu ni su fekkee yaa ngi xuloog sa bakkan wala yaa ngi jàppanteeg sa bakkan seytaane ñëw di leen jubale wala bëgg leen atte wala yaa ngi wax ak seytaane bakkan ñëw bëgg leen atte nee na bu ko déglu te bu ko topp ndax nee na xam nga ñoom ñaar seen pexe mooy daaneel la ci biir pax bi léegi nag fi may tëjee bunt bi Oustaz Modou Fall mooy li wax ni astaghfirullaha min xawlin bila amalin laxad nasabtu bihi naslan lizi uqumi nee na man day Buseyri yu maa ngi jéggalu yàlla ci wax joo xam ni du ànd jëf moo taxoon man la ci biir bunt bi mi ngi jàngale ni nañuy wàññi wax te bari lu ñuy jëf ndax yàlla waxul jëf le wax leen ma fay leen waxul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu summa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluuna kon da ngay gis ni jëf moo gën a am solo kon oustaz pour tënkal la bunt bi daal bunt bi li muy jàngale mooy kenn ku nekk na nga fexe ba sa bakkan fi mu lay sàmmloo bu fa sàmm ndax boo fa sàmmoo fa ngeen di mujje du baax oustaz Modou Fall. jërëjëf oustaz Pape Makhtar Sylla ci leeral bi nga indi ci buntu ñaareel bi nga xam ni moom la ñu ci burdu bi waaye Sylla dafa mel ni nag sa waa nag kenn du moom Seydil Hadj Malick jàmbaar gi imaamul Busayri yi am ba génnee xam-xam bii. Mhm. itam am nañ jàmbaar ju mel noonu fii ci réew mi. Mhm. Seydil Hadj Malick mooy kan. suñu bëggee wax kan mooy Seydil Xaaji Malik dama lay wax li sëñ Babacar Si waxoon radiallahu taala anhu wala li sëtam bi wax Serigne Cheikh Serigne Cheikh dafa ni Seydil Xaaji Malik mooy majulul umma mooy koo xam ni xeet wi xamuñu ko te duñ ko xam sëñ Babacar Si radiallahu anhu bañ ko laajee kan mooy Seydil Xaaji Malik xam nga lu mu tontu mag ñi dafa ni Seydil Xaaji Malik de bu doon am ñu koy xam mag ñi nekkoon ak ñoom moom ñoo koy xam mag ñi mooy ñan ñoom moom alxaaji rawxaan ngoom radiallahu taala mam maam yu baax mag ñooñu maam Hadi Touré Serigne Babacar ci boppam maam Mansour bàyyu xalif général Tidiane mu ni ñooñoo koy xam waaye Serigne Babacar ni ñooñu li ñu xam ci Seydil Hadji Malick ak li leen ump ci Seydil Hadji Malick dafa mel ni xale bu génn buntu kër baayam for jamaa te jamaa bi muy melxati waaye du xam ni limu for mën na dundal baayam ren ba déwén nee na mag ñi li ñu xam ci Seydil Hadji Malick noonu la mel ak li leen ump ci Seydil Hadji Malick si radiallahu anhu Seydil Hadji Malick soo nee xam-xam ba kenn melul ni moom ci xam-xam li tax ma ni la kenn melu ni moom ci xam-xam xoolal ñi mu jàngal ci réew mi moom Seydi El Hadji Malick xoole li muy nëbbu nëbbu bu yaram wi daan tàng daana wax ne ah réew mii di Sénégal nag ku ma fi jàngalul kala jàngal maa ko jàngal daara ju génneewul ci sama daara mu ni barewul fii ci réew mi moom Seydi El Hadji Malick xam-xam bu bare ba xoolal daana dajale mag ñëpp ñi ma la wax mag ñëpp toog ci kanamam ñëpp sëñ Babacar moom Mansour ñoom maam Rawxaan mu ni sama dund li ma ci gën a metti mooy ñetti téeméeri sharia ak juróom benn fukk yi nekk ci sama dënn man Maodo te aw ma ku ma ko waxal sa dégg nga wax ak juróom benn fukk yi nekk ci sama dënn te aw ma ku ma ko waxal loolu moo lay waral ni Seydi El Hadji Malick li mu leen bëgg wax mooy li yonent bi waxoon rek eh, Isra wal Mi'raj bi yonent yëpp taxawee mu jiite leen julleem ga def discours am ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa ni leen yéen nag baax ngeen waaye sama xeet moo gën seen xeet waaye booba am kersaa tax waxu leen man maa leen maa leen gën waaye ñoom xam nañ ni moo leen gën waaye Seydi Hadji Malick it am kersa moo tax mu wax leen ni ñetti téeméeri sharia ak juróom-benn fukk yi nekk ci sama dënn te aw ma ku ko waxal loolu moo ma gën a métti ci sama dund Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu réew mi di senegal xaw ma fi ku ko fi raw ci xam-xam xaw ma fi ku ko fi raw ci wilaya Mamady ne Seydi Xaaji Malik xarfu daat mooy da nee na jàngal ma ko ñaari fan kese kon da ngay jàpp daat jooju daat la ak lëf du daadi kese Seydi Haaji Malik radiallahu taala anhu wa arda wana bihi amin ku mu jàngal nga xam ni mu daan jàngalee ci xam-xam moo yéeme Oustaz Modou Fall mam Mansour radiallahu anhu mag ñi nee Seydi Haaji Malik da ko jàngal alquran bi mu jeexalee alquran Seydi Haaji Malik jàngal ko Laxdari yu Laxdari yu bi jeex maam Mansour fu mu fekkee ñuy faram fàcce ay masala yu nekk ca risaala ak ca lawal maam Mansour bokk ci ñi koy faram fàcce ba benn bis mu ñëw ci Seydil Hadji Malick loolu yéem ko ci boppam moom maam Mansour mu wax ko baayam bi mu ko waxee Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick ni ko ah ki la jàngal bokkul ñoom ki leen jàngal <laughs> pour wax la rek. ki la jàngal bokkul ak ñoom ki leen ñi leen jàngal. pour wax la rek xam-xamu Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu wa ardaahu wa na bihi amin kon Seydi Hadji Malick ci xam-xamam waaye xam-xamam li muy rëy rëy Seydi Hadji Malick xoola ci cofeelam ci yonent bi Seydi Hadji Malick ci bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax burdu bii tey Buseyri yi moo ko bind waaw waaye xam nga ni fi ko alaaji Malick yóbbu kenn yóbbu moo ko siiwal de fi ko alaaji Maalik yóbbu. moo tax ñu xam téere bi. kenn yóbbuwu ko fa. billaahi wal kitaab te damay wax ni Seydi Xaaji Maalik dafa nekk sëriñ bi sëriñ Oustaz Modou xam nga lu tax. waaw weer fanweeri fan la. xilaas fanweeri bunt la. te burdu bi ni mu amee garanti noonu la xilaasu zahab amee garanti. ndax burdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo feeñu Mouhamadul Boucheyri ci téere bi wan ko ni ko téere bi wax ko ni ko téere bi am na garanti. Buseyri yu xëy jël téere bi def ci poosam génneewu ko génn di doxantu dajanteeg beneen nitu yàlla nitu yàlla bi joxanteeg moom loxo ni ko li nga def ci yonent bi laa bëggoon nga jox ma ko Buseyri ñu ko mu ne ko li def ci yonent bi mu ne ko man defuma ci yonent bi dara lu may joxe de mu ne ko jox ma ko rek mu ne ko déedéet mu ne ko biig bi yonent bi jógee sa kër sama kër la ñëw xamal ma li nga def ci moom jox ma ko ma barkeelu ci mu xam ni feeñ na kon téere bi am na garanti mais xilaas it noonu la amee garanti ndax Seydi Hadj Malick mi ngi ko liggéey vingt quatre vingt quatre jours ñaar fukki fan ak ñeent te mag ñi nee nañu téere bi bi mu koy liggéey ak bi téere bi di noppi teqaliwu koo fekk Seydina Muhammad so alayhi wa sallam te xoolal xilaas bi ni mu riche te bi mu koy bind fekk na boobu bët yi muuru na gisul dara day tëdd rek di wax gaa yi ñuy toxal mag ñi nee na bi muy bi muy bind wa abdul mutallibin min baadu marra ila fatati zuhrata zati almajdi walkarami mu ni mag ñi marra ala mraatin tuddaa bi fatimatin tabghi almamala ilayha wa hiya lam turami gaa yi yaakaar ni góor gi daf leen ni marra te boobu dafa silmaxa de gaa yi bind marra mi ngi toog di déglu bind bindee bayit ba pare uhu pour mu teg ci bayit bi ci topp mu ni leen tegal leen ma ci liif gi ci marra yaa ngi may dégg. bu baax nit nañ teg liif xam nga mag ñi dañu yaakaar ne marra la wax. pour mu xëcc ko. te moom marra la wax ñaar muy Abdullahi ak Abdul Muttalib muy marra. mag ñi yaakaar dafa ne marra ñu bind mara mu ñu tegaleen ma ci sama liif mag ñi daal di yuuxu. parce que moo góor gi yow say bët dafa sëgg bu bët yi sëggul woon sax moom dafa jëloon benn morceau bu weex wàcceeku ko nii ci kanamam. tëdd ci nii ci lal bi di wax mu ñu ko même bu bët yi sëggul woon sax da nga muur sa kanam kon noo xamee ni teg nañ ci alif wala teguñu ci alif mu ñu leen yàgg bind rek te déglu xalima gi fu alif war a jaar ak fu fu mu warul jaar danaa ko xam ci xalima ji ma ne ko de daf leen nëbbu boppam loolu beneen affaire la. allahu akbar jërëjëf oustaz Pape Makhtar Sylla yaakaar naa li ñu naan xalam demoon na bay neex buum nga dog. waaye loo gis dafa am heure fi nga ñu jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ñu ko ci Seydil Hadj Malick yaakaar naa téléspectateur yu télévision fitir Médias ñoom ñëpp bëgg nañu li tax ñu ni nanga ñëwaat mooy xam-xam bu rafet boo fi joxe waxuma la yëmbal ak sam-sam ak caaro yi ga nga dëkk waaye yow Sénégal gépp dañ lay bëggee nga yëg ak nga ñàkk a yëg soppe yi fu nu toll dañuy yóbbante ay kàddu yu nuyoo ci yow ak cofeel goo xam ne am nañ ko ci yow ci yëg-yëg boo xam ne am nañ ko ci booy waxtaanee yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawatina sunu sëriñ bii di Seydil Hadj malik ma bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yu télévision Futurs Médias jombul ni plateau yi ñuy amaat ci biir gàmm gi il faut nga dellu siwaat oustaz Pape maxtar si la nga tàggatoo jërëjëf oustaz Modou Fall ñu ngi sant yàlla bu baax gërëm yow ci occasion bi ñu may ñëw ci télé bi nga xam ni mooy télé askan wi télé bi nga xam ni ñëpp ñu koy bàyyi xel ci ay waxtaan yu am solo rawatina waxtaanu diine di la sant yow tamit bu baax di la gërëm ci sa yaatal ci sa façon jàngale law ci wàllu àdduna ak lépp tubaarakallaaw ba àdduna bi yëpp sopp la ngir loolu loolu ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sax te yàlla yàgg ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal itam suñu xalifa bi suñu jumaa ji yàlla nañu dund ba nu ubbi ko ba mu julli koog ñun ay at yu bare ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàmm gi ñu jubli tamit ñu ngi ñaan yàlla fu ay di gàmmoo yàlla la yàlla yóbbu ci jàmm nga dem ci jàmm fekk fa jàmm gàmm ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ni ñun doon seetaan yëpp rawatina nag waa Samsam ga nga xam ne falaa laa jóge eh, waaye rawatina nag fa ma bokk di waa Rimbax Silla tubaarakallaahu ñoom tamit maa ngi leen nuyu waa Rimbax yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko defal ko mboolem ji ñaanal leen gàmmu jàmm oustaz wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz Pape Makhtar Sylla la ñu amoon ci sunu émission leeral burdu yaakaar naa kenn werantewul xam-xamam kenn werantewul itam fasaaxa bi nga xam ni am na ci waxtaanam ñaanal ko yàlla mu may ko fan wu gudd lool te ànd ak wér ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ni émission bi nag. ki ñu sponsorisé mooy Touba Ameublement nga xam ni décor yu rafet yi meuble yu rafet yi chambre à coucher yu rafet yi ñoom ñoo koy defar te lépp ñu di ko liggéeyee ci biir réew mi nga xam ni facilité bi nu def mooy képp koo xam ni bëgg nga ci seen matériel daañu la jox ngay fay di fay di fay ba li nga fa amee mat kon ñooñu yaakaar naa jar na noo jàppale ndax consommer local la ñu wax te ñoom ay jàmbaar lañu yaakaar naa matériel yi ñuy liggéey gis ngeen ko ci bande annonce bi gis ngeen ko ci publicité bi muy matériel yu mucc ci ayib waa Touba ameublement ñu gërëm leen bu baax baax gërëm Zador Abdoul Aziz Alé Ndiaye mi nga xam ni moom itam diwlinam bi tabaarakallahu yéwénal na ko lool ci askan wi waaye mbooleem émission boo xam ne émission diine la rawatina lu jëm ci l'islam bi gis ngeen yéwénal bi mu ci def nga xam ni foo dem fekk fa Zador mu am fépp ci surface yi am fépp ci boutique yi ñuy ñaan gàmm gi nu dëkkmal na ñëpp consommer diwlinu Jador waaye sunu jigéenu bopp soxna Awa nga xam ni moom itam dafa créer benn pomme de terre boo xam ni dañu koy defar ci defarin wu mucc ci ayib nga xam ni mi ngi ci surface yëpp foo mën a dem da ko fa fekk ñi ngi ko liggéey ci liggéey bu mucc ci ayib ki nga xam ni mënta dem te gàmm gi du am jot xëy na pour saaf pomme de terre bu bari ñoom dañu ko liggéey ci liggéey boo xam ni loo ci soxla soo leen contacter ñu defaral la ko ba mu yem ci ni ko bëggee numéro am nekk 77 174 53 56 77 174 53 56 yaakaar naa ñooñu ñooy sponsor yi su ma fàttewul ceeb bi nga xam ni moom mooy sàngomaar yéen ñëpp ngeen xàmmee ko mu am bopp céeli bi nekk ci saako bi nekk ceeb boo xam ni itam yéen ñi koy consommer xam ngeen njariñ li ci nekk ndax amul ostokol amul benn problème boo xamante ni bii boo ko dee jëfandikoo di nga ko am képp koo xam ne bëgg nga ci itam mën nga leen a ñooñu ñëpp ñu ñaanal leen yàlla yàlla barkeel leen ñu jox leen dig daje subaak jàmm incha allah rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ma misla taybata manzilun wa kafa biha فخرا حلول المصطفى برباها